فاز الذين حافظوا على الصيام Touba Bois ministère yi soxna Ami nekk fii ci Touba Ndindi boo weesoo monument bi rek mel ni ko jëm dara la bu Touba Ndindi moo la fee sa loxo càmm dañuy liggéey lal bu ànd ak coiffeuse ak armoire deux ba sept battant dañuy liggéey ay porte lu ci mel ni porte saalu wala ay porte sàmbur dañuy liggéeyee xeeti bant yi ñoree fii ci suñu réew lu ci mel ni dimb wala wel ci wàllu bant yi jóge bitim réew nag am na falake am na jibuti am na yettani saa Touba Bois menuiserie soxna Ami Ñaan nekk fii ci Touba Ndindi gaaw leen jokkoo ak gérant bii di Serigne Modou Samb 78 389 67 78 moo leen di may seen naafile de jour محمد من المهلل الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ولد محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بوك جيلي بوك طالبي ني نيب تاي زياره باخ باخ تاي نيو فاسينا نيو يين تاي تي ايميسيون بي دي وار ماي كور ان شاء الله ربي جينا بي ني زياره الشيخ محمود المنتخب بشير الشيخ محمد مبارك ام سيخ فادل ني مبولم جليت فمو نيك رك تي ادنا بي دي زياره نيب دي نان يالنا كور غي نيو وار كو سلام بارك سول خديم وا ايميسيون بي دي وار li nga xam ne tey moom lañ fa séenee njëkk def yéen bala ñu ko tàmbale mooy xamal leen ni leen chaque jour buñ koy def dañuy jàll jàllale naafila bi nga xam ne moo war ak bis ba noppi ak ay njariñam buñ ca noppee itam xool ban tomb la ñuy booleeg naafila googu bu demee ba jamono xat yi itam nga xam ne mënuñoo boole ñaar yëpp naafila gi moom dina jàll ndax naafila gi bis bu nekk lay doon ci weeru koy ba mu jeex kon incha allah rabbi kon nag ñu ngi leen di bàyyiloo xel bu baax a baax ngeen di ko teewal te ko topp te xam ne lepp a ngi ci bir waajal nañ ci lepp rek insha allah rabbi tay ji nak di guddig ñaarel gi ci wéru koor wi ñu nek insha allah rabbi ñu jëlé ci khuratul ayni bu sayyid sahab Mbakke ibnu Cheikh Ahmad baba khadim Rasul mo wax ne képp ku ci julli juróom ben rak'a ta moy 6 rak'a ko ko ci julli rak'a bu nek bu ci nek nga jang ci fatiha ak inna a'taynaka al-kawsar ba mu jeex inna a'taynaka al-kawsar ba mu jeex fukki nga koy jang ci rak'a bu nek nee na soo ko defee boo demee ba sëlma bala ngaa jóge fii nga doon toog dinañ la jéggal mboolem sa ay bàkkaar yéemut ci loolu waaye dinañ la bindal tiyaabay ku aj junni aj yoo xam ne aj bu ci nekk nangu nañ ko te aj na ko na nga ko war a ajee yéemut ci loolu tamit ak ko omra boole ci di mel ni it ku saraxe junni dërëm di nga mel ni it ku seeti junni nit yoo xam dañoo wopp te kenn ku nekk xam na ci li nekk ci dox seet sa bokkum ji bu ko dara dal rawate nag bu ko dara dalee waaye it dinañ la maanaam bindal tiyaaba yi jaamu yàlla maanaam danañ la bindal tiyaaba jaamu yàlla juróom-ñaar fukkaat yoo xam ne nit ki jaamu na ko yàlla ba suñ borom nangu jaamu gi boo ci jullee rakkan yooyu ñuy wax ci ci guddi tey gi ñu nekk suñ borom dina la ci defal loolu kon mbokk lu mat a xam ne lu mat a bàyyi xel la nañ ko topp bu baax a baax te di ko yaatal euh, lañ ci yokkaat nag muy kenn ku nekk xam na ne koor lu yàlla faratal la ci ñun ci biir farata jooj nag koor dafa am ay farata boppam am ay sunna boppam rawatina mu kàllaf muy def dara ci diine loo xam ne xamul lan la ci lislaam wax kon liñ leen njëkk jàngal tey mooy faratay koor ak sunnay koor faratay koor kenn ku nekk xam ne ñaar la ni ñu ko Sëriñ Tuubaa jàngale ci Risaalatu Sixaar ay sunnaam di ñett amul yokk amul wàññi la jiitu ca faratay nag mooy yéene ju sell ji ngay def ni fa séen dama war wér rek ba mu jeex bu fekkee da nga bari ay sikki sàkk nag bu la neexee mën nga ko tudd sa làmmiñ waaye yéene ci xol lañ koy def kon loolu mooy farata bi njëkk farata ba ca topp nag mooy fexe ba soreel sa jëmm sa gémmiñ ak lépp nga fexe ba soreel ko lépp loo xam mën naa yàq sa koor mën naa doog sa koor nga fexe ba soreel ko sa jëmm ji ba keroog bëccëgu weeru koor gi jeex buñ la laajee lan mooy farata da nga naan mooy loo xam ne boo ko defee am ci tiyaaba boo ko defut nag am ci daani suñu borom subhanahu wa taala kon loolu mooy farata ñaari farata yi la am ay sunnaam ñett la ba ca njëkk mooy gaaw a dog gaaw a bu ñu ko waxee am na suñoo xam ne dañuy bàyyi ba ñuy nodd ñu doog a dog te loolu ak yeex a dog la saa boo xam ne gisoo gisutoo jant bi te asamaan si leer na nam daan leeree lënd mu defu dara dara laqu ko amul niir amul dara jant bi nëbb na dogal boo dogee am nga koor te ki gën a teel a dog sax ci waxtu yi kooku moo ëpp tiyaaba ki nga xam ne dafa bàyyi ba dog bu waxtu wa dugg lu bari mu doog a dog dog nag dafa am ay sart yonent bi nee na booy dog na nga dog ci tàndarma ju tooy bu fekkee amoo ko nga dogee tàndarma ju wow boo ko amul na nga góox ñetti ndox kon loolu mooy sunna bi ba ca topp mooy ñaareelu sunna bi mooy yeex a xëdd yéex xëdd buñ ko waxee bu fekkoon tey ci misaal dañuy nodd 6 heures 0 la ñuy nodd asaadu xayma 9 bu fekkoon ne heure boobu lañ koy nodd laa wax kon yow bu 5 heures 40 jotee man ngaa jóg waajal nga xam ne diggante bi ngay xëddee ba ni ngay noppee boo toogee 5 minutes rek gën ngaa bëri 10 minutes ñu nodd asaadu xayma 9 bu ko bu ko ëppee jëm kaw nag ba àgg 30 minutes moom yé da dangaa dangaa dangaa xiifoon yeewu lekk rek waaye bul ko tuddee ab xëdd ndax xëdd dafa am xëdd nag du ceegul lekk boo suur ngir bañ a xiif ci bis moo tax ñu ñu koy def loo waaye yént bi daf ñoo digal dee xëdd ndax xëdd kat am na barke boo xam ne nekk na ci dee leen xëdd donte góoxi ndox nga góox sax barkeeloo ko ngir am barke bu xëdd boobu jar na ko waaye boo jàppee ne lekk ba suur wala tey xiif it ndax nga sa bopp ki gën a dàq lekk ba suur ci fajar gi kooku mooy gën a xiif ci bëccëg gi mooy gën a sonn kon na war a bàyyi xel ba ko ñetteel ci sunna yi mooy fexe ba sa làmmiñ ba nga téye ko wax ju bon moom dañ koo tere ci yëpp waaw waaye lépp luñ tere ci weer ci des weeru ko moom da raw boo ko ci defee di nga dajeeg musiba mu moo xam ne ñàkkoon ko ci def dina gën ci yow nga téye sa làmmiñ bi ñetteelu sunna bi ci weeru koor sa làmmiñ bi nga téye ko ci lépp loo xam ne lépp loo xam ne wax ju bon la wax ju tegguñuwul la moo xam ay comédie la moo xam ne mën a doon nga téye ko bul jéem a wax benn wax bu salte ngi ngi ngir jéem a neexal kenn ba yàq sa koor bul ko def kon loolu mooy sunna yi muy ñett yooyu mu wax muy maanaam gaaw a dog yéex a xëdd ak téye sa làmmiñ ci lépp loo xam wax ju ñaaw la farata Touba Bois ministère yi soxna Ami nek fi ci Touba bo boo weesoo monument bi rek melni ko jëm dara bu Touba Ndindi mo la fee sa loxo càmm dañuy liggéey lal bu and ak coiffeuse ak armoire 2 ba 7 battant dañuy liggéey ay porte lu ci melni porte saal wala ay porte sàmbur dañuy liggéeyee xéti bant yi ñoree fi ci suñu réew lu ci melni ni dimb wala wel ci walu bant yi jóge bitim réew nag am na falake am na am na yettani saa Touba Bois menuiserie Soxna Ami Ñaan nekk fii ci Touba Ndindi gaaw leen jokkoo ak gérant bii di Serigne Modou Samb 78 389 67 78 moo leen di may seen naafile du jour